mutlaqan li saatil baari summa salaamuna alal muxtaari basil wujudi markasil asraari sirru suuni majmaxil anwaar bokki jullit yi bokki taalibe yi waa Baay Muxtaar TV ñi ngi ànd suñ mbokk suñ jarbaat Mansour Touré ci liggéey bi ñi ngi ci ruwul ëdëb bu Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu bàyyi nee na fa xata un lisseyqi aqwamu wa alyaqu min almuridi hendaman xaqal cheikh ibrahim nee na faxata un njuumte li seyqi ñeel sëriñ bi aqwamu moo gën a jub wa alyaqu moo gën a yeey ci topp ko minal muridi dégg nga ci xalaatu taalibe bi waaye loolu nag hen daman xaqal loolu ñi am xel parce que boo seetloo même alquran sax borom xel lay waxal parce que am na ci wax yoo xam ne boo amul xel doo mën a liggéey ba xam fa muy waxee ndax daf la digaloon nga ànd ak sëriñ bi nga mel ni néew yow taalibe bi doo jàmbat dara loolu ci kan nga koy mel mooy ci seyxu murabbi bi waaye seyxu murabbi boo xam ne euh, mu ngi amee lijaasaam ci pays yàlla maanaam duwut ne lijaasaam dañ ko bind rek jox ko seyxu murabbi bi bàyyi di wax mooy seyxu murabbi boo xam ne la dooree xadaraat ci asal xadaraat ci nubuwa xadaraat ci wilaaya xadaraat ci xilaafa lépp mu ngi ko bank même bu ko moomul sax mu ngi ànd ak ki ko moom ndax loolu yëpp dafa am fu mu wàcc fa mu wàcc nag su fekkee yaa ngi ànd ak kooku su boobaa kooku mën na laa wàll jikko bi ba yow nga am muq maanaam nga am cërëb muqadam bi muqadam boobu la bàyyi de wax ne boo ko gisee melal ni néew ci moom su boobaa muqadam boobu njuumteem moo gën a jub sa xalaat waaw loolu nag neexut a dégg moo tax bàyyi na xeen dama naqal waaye danaa la ko xaccal tuuti mu jege yow danga nga bëgg a faju nga dem ci docteur bi docteur bi moom mën na liggéey bi lool am na garab waaw waaye ci biir loolu docteur bi daf la waroon a péngu ci loxo mu péngu la ci tànk xam nga juum na waaye juum juumte boobu docteur ba def moo gën yow nga doon joxe sa xalaati bopp ndax yow xamuloo yow xamuloo ku xamut xamut mën ta xalaat soo xalaatee itam du sotti ke xam te xam nag su xalaatee même bu juumee ci xalaat ba mën na koo réparer mën na koo defar beneen exemple mooy da ngay tukki nga am koo àndat ku xam yoon bi moom xam na yoon wi lool moom moo ànd ak yow di wan yoon bi ngeen dem ba ci kanam mu gëlëm mooy mu juum mu juum waroon a jël yoon wi jël ndeyjoor bi moom mu jël càmmoñ bi kooku njuumteem booba moo gën sa xalaat yow ndax yow bi nga egsi xamula ndeyjoor la xamula càmmoñ la moom nag njuumte moo ko jaarloo ndeyjoor bi bu demee ba ci kanam dana mën a toon dana mën a dellu si waat ñëw jël càmmoñ bi dem yow nag xamula ndeyjoor xamula càmmoñ yow kon sa xalaat amul benn njëriñ kon lépp lu bàyyi jàngale dana am koo xam ne du ko mën a dégg daf koy jaaxal waaye fekk li noonu la sëriñ bi boo ko xasee jox sa bopp muy sëriñ bu mat sëriñ sa boobaa bàyyi nee na àndal ak moom rek njuumteem sax moo gën yow sa xalaat yow sa amut yow amuloo yow manuloo yow xamuloo yow fooy xalaate kon ki nga xam ne moom moo dajale lépp te mooy muqadam bi te muqadam bi wax naa la ko foog boo xam ne dafa ànd ak borom jamono duwul li jaasab këyit rek la am ndax da ngay dégg bàyyi di wax ne man da tasaddara lil masiqati qabla wujudil isni min allahi dayaa diinahu wa dunyaahu wa aftadaha na abnail jinsi maanaam koo xam ne dafa jóg bëgg a nekk sëriñ bëgg a nekk ak muqadam nit ñu topp la te amula ndigal lu jógee ci yàlla gis nga ko ndigal lu jógee ci yàlla waxu ndigal lu jógee ci kenn de ndigal lu jógee ci yàlla ndigal lu jógee ci yàlla mooy lan mooy ndigal lu jógee ci ku xalifa bi yàlla yàlla moom doo am moom ndigal lu jógee ci moom waaye ndigal lu jógee ci xalifaab yàlla la wax man tasadara lil masixati xabla wujudi isni min la soo ko defee yow bëgg ngaa nekk muqadam te àndulaa xalifaab yàlla bi mu ne su boobaa da nga sànk sa diina da yàq da nga sa adduna te da nga sa bopp ci kanam ah, say morom am na ñu koy firee noonu waaye da nga sànk sa sa sa sa sa yàq sa adduna dégg nga ci kanam sa abnaul ul abnaul jinsi mooy lan mooy li ànd ak yow te moomu la ko te xamu la ko nga war koo delloo borom muy kóllëre gi la yàlla santoon na la nangeen ngeen delloo kóllëre yi ci seen borom yow xamula ki moom kóllëre gi xamula ki ko war a delloo loolu gàcc ñëw na kon muqaddam dafa war a am dafa war a am euh, bagage yi bagage yi nga xam ne moom lañ soxla loolu nag du ko mën am lu dul ne dafa ànd ki nga xam ne moo dajale xaqaayiq yi téye dajale nisab bi téye ko nga xam ne soo ñëwee nga xaqaayiq ak nisab bi la lay deferee wa xaqaayiq ak nisab bi mom la lay deferee euh, mëngoo kon fa xatawun li sheikh lañ isi won tay ñi ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla yalla ولا سيما حب إذا رمت برأه تكون طريدا فيه مواقف مجمعي وذلك هب القطب أحمد سيدي وذا موقع الأسرار في كل موضعي الحمد لله